bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabi ilaalamin walsalaatu walsalaamu ala ashrafi alambiyaai walmursalin wa ala alihi wa sahaabatihi wa xadimihi wa ummatihi wa sallim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax ci turu euh, kuréel gi nga xam ne ñooy liggéey ci mu mutaabaa ak taqwiim di topp njàng ma ci daaray soxna jaara ji ci poroxaan ak it bu ñu àggee ci wara tari alxuraan ñu téyel leen natt leen ba mën a saxal seenuk mokkal ak seenuk ñàkk mokkal kuréel googu sëriñ Muntaxa moom sëriñ Maam mi jiite ko ànd ko bokk yu takku kon ci tuuru kuréel gi ñu ngi lay nuyu bu baax te di la ziyaara di nuyu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mi nga xam ne moom nga toogal ci jotaay bii di nuyu Serigne Moustahine ak mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci fondation bi di liggéeyal daara ji eh, Serigne bi alhamdulilah rabbil alamin kuréel gi nga xam ne ñoo yor mu taaba ak taqwim eh, liggéey nañu ci gone yi diirub ñaari fan yi démb ak tey ren ji ñi nga xam ne ñoo bàyyi ko poroxaan dikkoon ñu leen di seet toll nañ ci fanweer ak juróom-ñett euh, muy lim boo xam ne kon yokku na ci at yi wees ndax li ñu seetlu mu at yi wees yëpp at mu nekk lim bi dana yokk alhamdulilah kon ren it yokku na fanweer ak juróom-benn yooyu téyel nañu leen fanweer ak juróom-ñett yooyu téyel nañ leen euh, ñi leen téyel ay jàngalekatu alxuraan lañ doon yoo xam ne wattu alxuraan yoo xam ne ñu ngi leen di tànne ci dëkk bi tànn leen ci seen expérience ak it muy ñu ñu xam ci alxuraan niñ ko defee it mooy maam jaara bu nekk ñeenti jàngalekat ñoo koy téyel kenn ku nekk téyel ko fukki xisib ak juróom bu ca noppee jox ko moroomam nga xam ne su taree kaamil bi yëpp kon ñeenti kat yu am expérience ñooy saxal ak mokkalam wala ñàkk a mokkalam niñ koy defee mooy niñ ko daan defee ay fiche lañ yor fiche yoo xam ne ñeenti fiche la fukki xisb ak juróom yu ne ak fiche biñ koy seet fiche bi li ciy nekk mooy daañu natt gàkk yi xool yàquk maskam xool yàq arafam xool rungeem leen lu mu ci def rek ñu noteel ko ko ci fiche boobu suñu noppee nag ba mu tari alxuraan lépp fiche boobu commission bi jël ko xool nag ba xam kii ah day saxal ne mokkal na ci lim gis ci ay résultat ci moom wala mu saxal ne mokkalut gag am na ca yàq maska am ca yàq araf am ca runge am ci yàq araf ak yàq maska yooyu dañ koy boole buñ ko boole jox ko valeur gag waaw kon loolu bu ñu ko defee ba àggal la ñuy saxal ndax kii mokkal na wala mokkalul loolu alhamdulilah diggante démb ak tey mbooleem maam jaara bu dikkoon ci 38 yi ah, xayma nañ ko nattu nañ ko ci anam gu noonu résultat yi nga xam na moo ci génne nii la tëddee am na ci euh, lu toll ci fukk juróom-benn yoo xam ne ñoom amuñu benn gag ci alxuraan fukk ak juróom-benn. am na ci ñaar fukk yoo xam ne diggante benn gag ba ñeent gag lañu am waaye kenn agu ci juróom ñaar fukk yoo xam diggante benn gag ba ñeent gag waaye kenn agu ci juróomi gag am na ci it juróom benn yoo xam ne am na ci kenn koo xam ne juróom benn la am am ci koo xam ne juróom-ñeent gag la am kooku moo ci ëppale koo xam ne juróom-ñeent gag la am tey li ñu nekk li nekkoon ci règlement bi mooy ku gag ba àgg ci fukki gag ak ñeent kooku dañ koy delloo mu jàngi waaye gis nga ki ci ëpp gag juróom-ñeent gag la am euh, ñi ci des ñëpp it noonu la demee soo ko boole lépp di fanweer yi ak juróom-ñett kon commission bi bi mu xoolee mboolem résultat yi saxal na ne kenn ku nekk ci maam jaara yi wattu na alxuraan wattu gu rafet e wattu goo xam ne dina boole ratax ak it maanaam njàng mu rafet moo xam ne dina boole ànd ak kon loolu mooy li nga xam ne moom la commission bi euh, gis ci liggéey bi nga xam ne moo fi jaar muy tegtale nag kon ah liggéey bu rafet boo xam ne waa daara ji ñu ngi koy def muy jàngalekat yi waaye it muy idaara ba fa nekk di direction bi ndax dañuy faral di wax ne liggéey bi moom amuti jat amuti luxus amuti ñaan moom kemte laayal effort boo def te organiser ko da nga gis résultat résultat bu toll noonu kon résultat bii nga xam ne gis nañ ko moom day tegtale góor góorlu goo xam ne waa daara ji ñu ngi koy def ci ñiy jàngale ak ñi nga xam ñoo leen di saytu kon commission mi ngi sant yàlla bu baax ah, di ci ci ci turu Serigne Mountakha Mamour mii di ñaan yàlla it Serigne bi Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké yàgg fi lool ndax xam nañ ne résultat bu fi am rek ci yittey boppam ak ku ñaanam akuk jàppam ci la amee te it alhamdulilah liggéey bi gis nañ ne teg na ko fu kawe ci ay yitteem kon loolu alhamdulilah feeñ na ci kon ñu ngi yemale foofu kàddu gi. Euh, rek di sant yàlla bu baax ñaan yàlla ñu fekkee waat ko atu yàgg ngeen yàgg fii nit di ànd ak sëriñ bi feggoog moom di ko dimbale suñu borom defal leen ak wér banaal yëpp àgg ci ànd ko yéen asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ndax ak cant yàlla bu du woon dogalub suñu borom ku ci bokk ku ne coobal suñu borom la gum nar ci yow ay xéewal kon nag noo ngi sant yàlla bu baax a baax. sant Cheikh Moustapha mi nga xam ne mu waral lii lépp di ko ñaanal waxtu wu ne muy dolli ay xéwal yéeneem ji yàlla àggale ko nam gën a réyee Cheikh Mountakha mi nga xam ni moo fi nekk ginnaaw mi taxaw ci nam ci war a taxawee na nga koy sant di ko ñaanal gone yii nag di leen gën a xamal rek di leen fuñ man di nekk bu leen fàtte seen bopp na ngeen xam liñ def ci yéen ak liñ bëgg ci yéen te def ko ba noppi waxtu wu ne ak fu ngeen mën ti nekk na ngeen ko xam nekk ca te di ko wane itam di ci nekklu képp ku nga xam ne am ngeen ci moom benn baat wala muy jéem a ci yéen na ngeen ko wan yoon wi ñu leen jaarale mooy yoon wi gën muy yoonu alxuraan muy yoonu soxna jaara kon nag bu leen da nga xam ne du ngeen fàtte mukk seen tur yi bu leen fàtte ne tur woowu moo tax ngeen àgg fii tey ci lu baax kon nag wéy leen ci waxtu wu ne te xam ne yoon wi rek moom la kenn ku ne bëggoon moom la jullit bu ne bëggoon ci sa seen njaboot moom la jullit bu ne bëgg ci seen kon nag yal na leen ci yàlla gën a saxal ba ngeen gën koo mën a wéyal fépp fu ngeen mën di nekk loolu rek am solo loolu la Cheikh Moustapha bëggoon loolu la yàlla tànn ci yéen ba lii am tey kon nag yàlla na ko yàlla gën a saxal ci yéen yàlla ba yéen ñii nga xam ne yéen a àggal itam ku ci daal dellu ca daara ja ku ci dellu ca daara ja ku man di doon rek na ngeen sax ci yar bii ñu leen defal yarub alxuraan yarub soxna jaara loolu rekk am solo di ko wane di ko dund di ko wane ndax loolu mooy li ma waxoon rek loolu la sëñ Moustapha bëggoon ci yéen. loolu lañ bëgg ci yéen itam ba lii am kon nag loolu rek moo am solo yàlla na ko yàlla gën a saxal ci yéen na leen yàlla taxaw bu baax a baax a baax ba lépp lu nga xam ne Cheikh Moustapha yéene woon na ko ci yéen yàlla def lu raw loolu ci yéen. waaye di gën a képp ku nga xam ne rek yaa ngi gis lii wala nga di ko dégg ñoo ngi lay gën a soññ ci daara te xam ne lii yaakaar naa ne jullit bu ne bëggoon na doomam ak si fii. li tax nag mu mën a nekk itam mooy pasteefub taalibe yi pasteefub daayira yi pasteefub nit ñi bu du woon a loolu itam xaj na du ak si fii tey waaye lool naka jekk loolu Cheikh Moustapha xamoon ba tax mu féetale daara yi ak jigéen ñi ak taalibe yi Sëñ ak képp ku nga xam ni ab jullit nga kon nag ñëpp ñu ngi leen ciy gën a soññ leen gën a soññ ci lépp lu nga xam ne mooy doxal daara ji muy carte yi muy parrainage yi muy lépp muy ndimbal yi nga xam ne nit ñi dañ koy indi te mu bari lool loolu lépp noo ngi leen ci gën a soññ di leen gën a xamal ne li nit ñiy def itam mi ngi ñëw ndax moo tax daara ji agsi fii tey kon nag noo leen ci sant bu baax a baax yéen ñi nga xam ne yéen a koy diviser itam noo ngi leen ci sant ci loola ndax buñ bëggoon daara ji moom ñàkk xam la waaye ku ko xam ku ne te di jullit wala ngay ab sénégalais bu bëgg lu baax sa doom itam am ci yéene kon nag ñoo ngi ciy woo ñëpp di leen gën a sant leen gën a xirtal ci lii itam ñu xirtal ci seen i doom ci lu baax waxtu wu ne ñi nga xam ne seeni doom dafay nekk itam ñu fexe ba taxawu leen ba ëllëg ba jàppandil leen seen yar bi ak seen bëgg gi ñu nekk seen seeni waajur leen ci gën a mën a jàppale ndax ba tey ay xale lu ñu def def ci ñoom itam ñoom ñoo ko gën a mën a àggale kon nag doo leen di jaar seen gone yi ñu yóbbu fii ba yàlla def ci ñoom lii itam ñu continuer ñoom itam yar ba ak lu baax li ñu def ci ñoom ñu fexe ba loola wéy ci ñoom itam kon nag noo ngi mboole mboolem bokki taalibe yi mboolem bokki jullit yi ñu xam ne daara ji lislaam la fi nekkal amul lenn lu lenn luñ fi kii lu yarub lislaam ak ak xam-xam ak xam ne lislaam ak yarub lislaam kon nag moom jullit yëpp ko moom rawat ci nag taalibe kon nag ñoo ngi leen gën a woo ñëpp rek ñu gën a jëm ci daara ji ba ñu bare bari am nañ ci yéene bëggoon indi seeni doom waaye ñàkk yenn ak fenn ci moyens yi moo tax munuñu ko ba tax na kon nag maa ngi woo gën a mbooloo mi ñëpp taxaw ci ba xam ne képp ni ko Cheikh Moustapha yéene woon képp ku am yéene yi indi fi sa doom yàlla da nga ko fi mën a andi man leen a yor yor ba nga xam ne moo mooy bëggën di leen jàngal alxuraan itam ci njàng mu nga xam ne mooy ma nga xam ne mooy méthode bëggan waa koy asalaamaaleykum wa rahmatullah